ñu joxe ñaan te mu wér ci suñ xol yi ñu jéggulu te xam ne li ñu fi dajale du caaxaan li tiita réew mi yëpp adduna bi mooy feebar bi ku nekk war a ñaan yàlla mucc ci loolu moo tax ma di ko loolu moo tax ñu commencé wax ci ma bëgg li ma ne toujours chef de village ñaar téeméer lañ ak juróom fukk ak juróom-ñaar lu ñutukat yi ak ñiy wax ñu seetlu ba xam ndax ñaar téeméer ak juróom-ñaar yooyu juróom ñaar yooyu dana ci am kenn ku manqué saaku ceebam ñu feeñal ko looloo tax ma di ko leeral waaw département bi juróom juróomi téeméer dëkk na ak juróom fukk ñi ñëw am seen carte laissez-passer yi leen Macky Sall may nekk na ñaar téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñaar ñooñu ku ne danga am saaku ceeb bu soobee sëriñ daara yi nekkoon na ñaar téeméer ak ñaar fukk ak nangam. ak juróom jël nañ seen ceeb jeex na. commune yi ngeen bàyyeekoo yen ñëpp commune bu ne euh, chef de poste santé ba ànd na fi ak responsable ba fa ne chef de poste de santé ba jox naa ko ñetti saaku ceeb. diwlin dégg nga ñetti carton saabu diwlin leneen ak leneen ak ak ak raxasookaay yi. case de santé bu ne ci commune yi bu ne fa nga jógee ko sa case de santé ba jox naa ko. responsable ba jox naa ko fukki saaku mu dem am ñu ci dimbali ko moom ñu ko doon jàppal te damay doole loolu lu ma def la ma bëgg ñu luñu ñutu ko ba xam ndax dëgg la wala du dëgg loolu laay def weeru koor yàgg naa képp ku mos a bokk ci yéen sëñ daara yi yàgg naa leen a woo fii di leen jox ba paas sax dama leen koy jox waaye nag ñaar téeméeri sëriñ daara ak nangam wax dëgg yàlla suma poos jotewu mën naa leen a jox ceeb bi waaye mënumaa joxe paas bi su ma ko amoon yéene naa ko ah te sëñ daara tamit du dund moo leen indi ci ceeb teraangaay àdduna ak yëg moo leen indi waaye am na ñoo xam ne sàkku ceeb dara lu leen jógee sa sa buntu kër dem feneen waaye lu ñëpp bokk su xewee ngay jullit bu la ca ni ña waaye nga wuy loolu moo indi sëñ daara yi waaye du ñàkk du xiif Ah, waaw man damay dep eh, gëna a ci waxu président bi ci affaire chef de village yi chef de village yi sous préfet yi préfet yi gouverneur yi ben décret ba moo leen bokk tank moy di tuba di wax de décret 72 636 moo leen tank ñom ñep yeen defena bi ngeen di jël sen carte yi toujours mo wax leen ko ne leen am ngeen doole décret bi tënk chef sous préfet yi cinq sous préfet yi gouverneur yi mo leen tank kon nak kilifa ngeen su loolu passé comme ni ko président waxé ci commune bi commune bu nek jël nañ ci 15 serigne dara soko sété 15 commune muy 225 serigne dara ci carte chef de village am nañ ci 287 carte soko boré ñom ñaar muy 512 fu mu nii ñu ngi ci 512 carte yo xamné ne nañ ko carte yooyu yëpp nak président mo fay xaris bi plastification yi ngeen gis carte bu nek témèr la mo su fi defaru carte fay dërëm mo su fi defaru carte ñu laaj ko dërëm da ngeen di ñëw rek photocopie carte dant bi sax ñoo leen koy defal fii photo dong ngeen ñuy indi ñu photocopie carte d'identité bi fii jox leen geen dem donc situation bi fu mu nii ñu ngi ci 512 juróomi téeméer ak fukk ak ñaar ci boo sëriñ daara yi ak euh, chef de village yi chef de village ñaar téeméer nañ ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar sëriñ daara yi commune bu ne am nañ fa 15 soo ko xoolee 15 communes yi muy ñaar ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom soo ren booree muy juróomi téeméer ak fukk ak ñaar Di moy situation bi nga xam ñom am nañ ci ñom ñepp carte fi ñuy wax ak yeen yeen ñepp ma ngi wax ñun ñepp ñu delu ci waat ma gëreum nak ak suñuy bokk ñaar euh, ndax kat suñ bokki chrétien yi catholique yi war naa leen am fu ma leen santé te dana ko leeral dana santé tamit ministère de la santé moom it danaa ko leeral ndax euh, diina Sénégal adduna bi ñun ñëpp ko bokk waaye yàlla dafa def ci doomu aadama yi ay gëm-gëm ndax moo fi indi tarixa yi moo fi indi sëriñ si moo fi indi ñu gëmul sëriñ moo fi indi ñu gëmul yàlla nit ci gëm-gëmam rek laay dund ndax ku ne li nga gëm rek moom nga mën a topp ndax tey boo ñëwee ci liñ gëm ñun dafa am ci alquran dafa am kuma ma wax nema bu la nit ne wal yonent la loy wax man ko koko amo lo koy wax laaj nga ko wara def su la nit ne yonent la nga ne ko fan la la yalla tuddu ci alxuraan dana la ko wax parce que yonent yu bëri yalla mu tuddu na ngeen ci alquran mom bu ñëwee la yonent la te ñun moy suñu ciess lay nga laaj ne ko fan la la yalla tuddu ci alquran man mm. ko lo rek defena moy ton Euh, diina yi tamit nit ñi dañu ñëw ne diina defe ne diina diina tur la gëm-gëm la waaye ñun suñ diina ji fañ ko tudd ñu gëm ko ñeneen buñ ko gëmee woon niñ ko gëmee kon dañ koy gëmandoor ak ñun waaye alxuraan kay boo ñëwee ci Ali Imran suy na شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو والعزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ني جانغ القران لول لنج گم واي انا كاتوليكي كو گمت كون نيوم سن گم گم لنج گم مومن مو بوغول فوف تي نيوم داخ نيوم ديفنا ني كودوت نيوم لا گاي لنج گم ngalaw nga gëm ñun ñu ngi na ñoom it ñu nit liñ gëm ñoom ngalaw lañ gëm waaye yàlla mi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne moo ëpp sutura ku ne ñun ñëpp kenn ku ne mu ngi ñu amee amul ci kenn ku dee bàyyi sa morom amul ci kenn ku am ñàkk ñee ñàkk bàyyi seen morom ñëpp la yàlla seere amee leen yowmal am yàlla rek a xam nu ñuy attee ah, ndax boo ñëwee ci sabbaha huwa lawalu wal axiru wa saahiru wal baatinu wa huwa bi kulli seen xalimun ku jàng alxuraan ku ne xam nga ko yàlla nee na kenn jagoowu ko ku dut moom te bët bu set nga dégg ku la ne diw moo bëri baatin diw moo bëri saay te yow mi koy wax jàng nga alxuraan xam nga ne yàlla nee na kenn ayow ko ku moom te boo ko seetee yàlla moo wax dëgg ndax kuñ fi laajoon ba nga juddoo juddoogul lu xew doo ko wax hmm. ah kuñ fi laajoon tey bu lépp jeexee lii fii des doo ko wax xanaa nga wax lu la neex waaye xamoo ko ah ndem bi nga amee juróomi at wala ñetti at mënoo fàttaliku lépp li nga passé asamaan ak la xewagutoon ba nga juddoogut nit ñi yàlla dafa xam fi muy jaarale nit ñi nit ñi ñooy def lu leen neex waaye boo seetee ñun ci li ñuy def nee na jullit jullitaay mbokkam waaye ñun jullit yi ñooy xasante ci tele yi di waxante lu ñaaw nit naan ñooy ay sëriñ ñoo am xam-xam ñooy waxante lu ñaaw ci tele yi mosu leen a dégg benn katolik buy saaga moromam ci tele buy wax ju doo moromam ci tele kon loolu képp kuy jullit te ñuy suñ dëkkandoor war nañ leen cee félicité doo leen wax lu seen yoon newut te suba tubaab moo ne vie privée vie privée dégguma tubaab waaye boroom rek la engagé juddub jàmbur ak fameem ak nam yoree këram moom rek a ko xam boo des góor waroo ci ah te fi ne loolu moo am te télé yi gisuma ci télé boo xam ne bii télé catholique la wala télé chrétien ay jullit a ko yor waaye liñ gën a yàkkamtee teg nga dem saaga sa ko wax ne du doomi yoon dégg nga mooy kat la def katam lu bon la dégg nga ci saa si ñu teg ay jullit koy teg ñuy jokkalante ñu ñëw ba ci yow ne la looy tontu di wax na la lu ñaaw li wax na la lu ñaaw li wax na lu ñaaw ni te ay jullit a ko moom ah? te ay jullit ko moom waroon na tey ku wax sa morom am mata di gu toll ni wax sa moroom lu ñaaw képp ku ko war a jottali boo ko déggee mooy xam ci làmmiñ wala ci rajo nga noppi ko bañ ko koo yeggee bu waxee ci sa morom lu rafet nga yeggee ko ko julit non lañuy dund loolu la yalla sant te ñun ñoy waxante lu ñaaw ñoy waxante lu bon kon lool war nañ ko ragal opposition yi ñuy wax li Macky Sall wara am ci réew mi mom lañ wara am ci réew mi ndax Macky Sall 2011 fukki weer ak ñaar de euh, euh, région bu mu ci dem weer la fay am fu nekk dana fa ñàkk 33 millions du dem waaw bët bu set dana ñàkk lépp 1 million ci li muy fayee hôtel li muy jox sëriñ daara yi li muy jëndee ay gasoil te kenn xamu ko woon fanweeri million ak ñett booba kenn financé wu ko ko ay xaritam ak pexeem ñoo ko jox dégg nga baj ba mu jot réew mi bu jotee réew mi nag alali réew mi ñu dénk ko ko alalam la réew mi alalam la kon bu génnee ay milliards ne lii joxe nañ ko nga gis ko toog ca rajo ba naan Macky Sall lu joxe est-ce que comme ni war na ko mën a tontu moom maay wax ne lu Macky Sall joxe moom lu mu joxe ah Moustapha Niass ñoo bokk nekk assemblée bon boobu fond boobu ñuy wax ne Moustapha Niass lañ ko jox. Awa Gueye démb mu ngi wax ak benn télé bëggoon naa oote jotuma ko Moustapha am na ñu bëri séddale du daj mais man leer na ma am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ñu bëree bëree bëree bëri ci xaalisam boobu daf koy séddale par chèque du jaar sax ci moom ci trésorier bi laay jaar xaalis bu yëpp daf koy joxe Macky Sall mii ñuy wax lam am ca pale ba ana jumaa yi mu yeggale ana tribune yi mu yeggale xaalisam la que yoon moo ko jox moo ut réew mi ba jot képp ku ne ca ba am nga droit lañ laay wateel ñu wateel ko sa moroom te Senghor ba léegi kon moom moo ko moom mu ngi mel ne yow mu bay sa tool rek yaa moom sa xaalis ana ana ana ana bourse yi mu daan joxe fii ñaata dëkk boo dem am na fa ay bourse ci xaalisam boobu la ko doon def ah boo ñëwee di laaj naan Macky Sall lum joxe ak li ñu koy jox fu ko def yow mii fayee ko weer loo ci def ah amna tay responsable politique yu bari yu don xëccok Macky Sall fu ne ñu fa daan dem fu Macky Sall wote rek amna ñu leen fa wotel ndax ñooñu amono nañu am ngor gu tollu ni ña leen fa neel même bu dé internet ci ñu indil ko ñu jox leen ko kon Macky Sall bu ay nitam amé ñom seen nit am dégg nga maire ba jox seen nit ñi daj ah, waye do dégg ben responsable politique bo xam daan nga xëccoo réew mi Macky Sall fam doon dem mu tankam taxaw fa ba mu dara jox leen ne leen def leen mais nit ñi bu ñuy wax nañ wax dëgg dëgg la yàlla bëgg dégg nga dëgg la yàlla bëgg Macky Sall lam dencoon ak lam amoon yëpp jël na ko génnee ko jox ko nit ñi loolu nit waroon naaru sa toog ci tele dinaan Macky Sall lu lum def ah? la naaru sa toj ci télé dinaan Macky Sall lu mu def nit ku nekk li nga am nga mën a def sooy fayee ko weer weer ba yaa moom sooy baykat la nga bay yaa ko moom sooy jaaykat la nga jaay yaa moom ah, moom dafay fayee ko weer am la ciy def dafa am cër bu ko yàlla jox ci ku jiite réew lañ laay jox nga war di ko jox ni ñi laay seet si war di ko jox ñi laay indi la renseignement war di ko jox ñiy faju ji nga xam ne saay mbokk lañ yoo xam ne amuñ luñ fajoo loolu yow mu ngi koy def te ñoom bëgguñ koo gis kon waroo toog ci télé ba pare lii nga xam ne ñëpp a jaaxle ngay wax wax joo xam ne ji tegoo ko fen lu diw def lu diw def yow may wax sa télé ba même booy fayee ko fukki junne war ngaa mën a génne junne joxe ko ah yow miy laajte lu Moustapha Niass joxe yow da ngaa war a wax yow loo joxe ah dafa am jamono yoo xam ne buñ ca tolloo am na wax yu bëri presse waru caa yegg am na wax yu bëri nit waru caa yegg dégg nga waxi kokkuli wala waxi kañaan wala waxi ñaawlaate wala waxi yarade ko wala waxi ñàkk xam-xam dafa passé ci ñun fii ñu toll kenn ku ne na nga jàkkaarloog yàlla tiit ragal ko jéggalu ko bañ a tooñ sa morom te ñaan yàlla jéggal ñu loolu mooy yoon man loolu laa xam loo xam ne ni moom laa doon wax maa ngi leen di jéggalu di leen balu àq